fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina kon nag noonu lañu ko doore ci jotaay bi weesu ba weesu woon nañu sax fii ñu dégg léegi la laa yarfau alqadara wala duaai wa laadimanhu fuzta binnajaa'i mu ni dogal boo xam ne sunu boroom dogal na ko ba noppi dara mënu ko yëkkati lu dul ñaan moo tax jullit dafay ñaan boo amee lu la jaaxal ñaanal boo amee lu la tiis ñaanal boo amee yi mel ni liy dox ci jamono ci xale yi ñuy sàcc ak liir yi ñuy sàkkal pexeek gaañante bu metti bekk yépp yonent bi bàyyi na fi ñaan te mi ñuy woo ni ñu yàlla di woowee ñu jublu ci ñaan nañuy ñaan ndax ñaan ci mën dara ndax wax na ni dara mu ñu lu yëkkati wala jañ dogalub yàlla subhaanahu wa taala ba dootul ëgsi di dal lu dul ak ñaan wala sax bu dalee ba noppi dara mënatu ko yëkkati lu dul ñaan te ñaan gaaw na ca lool dogalu sunu borom subhaanahu wa taala nee bu xasee ba ëgse dal ci jaam mbaa ci àddina bi ñaan rekk moo ko mën a fanq ba ñu mën caa ame ak mucc ci mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala ndax mi ñuy xaar ci ñu woo ko ñaan ko kon yii dox ci jamono di yu raglu yii nañu am boog bés yoo xam ni nii ñuy faral di def naan dañuy dox doxu ñaxtoog dañuy marché ak yooyu la yépp am na lu ko gën a gaaw mooy nañu dajaloo dem ci néegu yàlla yi walla ci barab yu tabaarakallahu tumurankewu yi ñu àndandoo fa ñun ñëpp toroxlu ci kanamu yàlla ñaan ko waaye njàmbat ak jooy ak xultoog merak yooyu la yëpp li gën a gaaw daal mooy àndandoo torox li ci kanamu yàlla wan ko sunu tële wan ko sunu yërëmtalu ci kanamam ak sàkkoo ko ci mbaaxam mu musal ñu ci ñaaw ñaaw yeeg mettit mettit yeeg tartar yiy dox ba ñu mën caa jële ak mucc dara gënu caa gaaw toroxlu ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala ñaan waxoon nañu it euh, koy taxook ñaan foo toll la ñu dégg noonu ko maam Seydil Hadj Malick Sy alayhi ridal Malick waxe ci euh, téeréem bii di xantaratul murid mu ne nañuy taxook ñaan lazimhu waaw waaw lazimanhu lazimanhu nañuy taxoo ak di ñaan fu ñu toll buñ ci tàyyi buñ ci bàyyi buñ ci dellu ginnaaw te buñ ci yokki nee na su ko defee bu gën ko defee ci nii ma leen ko digale di wala ku ko def ci nii ma ko diggale te mooy ngay taqook ñaan fusda nee na kon day di nga texe bin najaa yi ci ku mucc guy ànd ak luy taxa gudd fan teg ca kon radiyallahu taala anhu loolu jar naa bàyyi xel jar na it fa tabaarakallah asnul xaaliqiina àndandoo ko ñun ñépp seet nu ñuy def ba boole ko sunu jëmm yi dëppale ko sunu xol yi toroxloondoo ko ci kanamu yàlla ñaan mu jëlil nu fi yii nga xam ne ñu ngi koy dégg te benn baaxu ci moo waral mu jël xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waye ko nii لا يرفع القدر سوى الدعاء ولا ذي منه فزت بالنجاء لا يرفع نانا دومنا يكتكم مك القدر dogalub sunu borom subhanahu wa taala si wa duaa yi lu dul ñaan moo mën a yëkkati dogal ba fànq ko ba mu dem wala mu gàttandu ko sax fànq ko ba mu dem mbaa mu xë ëgsi mu yëkkati ko ba ñëpp mujj ci mucc ci nee na ñaan rekk moo mën a am moo amee noonu kàttan fànq ab dogal ba muccee ca am lépp ci mbaaxu yàlla subhaanahu wa taala moo tax maam Maodo insisté wax ni njàmbat yeeg coow yeeg xultu yeeg wax jeeg yëpp nee na buñ ko bàyyi woon rek ñëw ci ñaan incha allahu taala kon daan ci yége ak texe akuk mucc goo xam ni dafay ah, dafay doon di loo xam ni bi najaa yi mucc guy ànd ak luy tax a gudd fan lay doon moom lu ñuy dégg maam sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu naan darru shikaayata darru shikaayata yaa qawmi bilaa amalin te boog ñu def suñuy ñaan ca mbir ya bàyyi leen njàmbat yeeg tawat yeeg yépp yéen sama nit ñi lu tee bu ñu amatee lu ñu jaaxal wala lu ñu tiital wala lu ñu xamul lu ñu àndandoo toroxloondoo ci kanamu yàlla jël ko delloo ko mbir moomu la sukk ci kanamam ñaan ndax fa tabaarakallah sunu xaalixi na ñaan yàlla moo am kàttanu mën a fànq dogal wala yazidul umra illa birru wa hakada rawa wa hakada rawar rasulul birru feddali gàngoog wala yezidu ndax du mën a dolli du mën a yokk al umra dund nga te mooy gudd fan nee na dara mënu ko yokk illal birru lu dul jëfe yiw te ñaan ci jëfe yiw yi la bokk booleeg yiw yi nga xam ne ñu ngi taqoo ci di ko jëfe tey moytu yi yiwadi yi wa hakada te nii ma ko indee nag waxee que ni man Malick Fawad Sidil Hadji Malick wax mu ne du samay waxi bopp de damay jottali rawaa nee na ki solo lii dey ba tax ma jottali ko ngeen dégg koy kan ar rasulul birru moo yenentu bu yàlla baaxal ba te koy kan sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax loolu ma jottali ko waxoon nañu it ci li nga xam ni mooy wàññi wërsëg yal nañu ci yàlla musal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ni maam Maodo radiyallahu taala anhu nee na ba tey ci téeréem bi waxoon nañ ko ci jotaay bi paase euh, ni waalam hadaaka allahu an arrajula yuxramu rizqahu bi dhanbin faala lu mat xam lu mat a bàyyi xel mu ne xamal ni maanaam waalam maam Maodo nee na xamal ni yow jaam bi di jaamu yàlla bi hadaaka allahu nee na na la yàlla musal subhaanahu wa taala ba balaa may wax li may bëgg a wax nee na yàll na yàlla musal ñun ñëpp te yow mii may waxal te nga nangoo ma déglu ñaan gi yàll dal yàll na yàlla musal yàll na la yàlla gindi yàll na la yàlla jubal waaye xamal ni raju la ni ki ku mu mën a doon di as cam di as waay di ku mu mën a doon mu ne yuxramu nee na def na ko xañ te mooy daañu ko xañ wala yaazu billah lu ñu koy xañ rizqahu wërsëgëm ci lan bizen bin ci sababus bàkkaar boo xam ni day faala def na ko def bàkkaar wala yaazu billah dina bokk ci yi xañe wërsëg yàlla nañ ci yàlla subhaanahu wa taala musal ba faw yàlla ci yàlla subhaanahu wa taala musal ba faw nee na yooyu dafay euh, xañe wërsëg dina tax ba wërsëg na ma waroon a demee ak na ma waroon a euh, euh, barkeele dootu na deme yàlla na yàlla musal subhaanahu wa taala ci loolu ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa si jamaal kadiba nag laa si jamaal kadiba nee na rawatina nag bàkkaar boobu ñuy wax fen fen te mooy wax lu dul dëgg nee na bokk na ci yi nga xam ni dafay xañe wërsëg bokk na ca it euh, nelaw ci waxtu suba waxtu wa ñuy war a jullee fajar julli suba nee na nga nelaw ca téppéeral rekk di wëy nee na yooyu it bokk na ci yi nga xam ni dafay xàññe wërsëg waliyaazu billah yenn nu yàlla subhaanahu wa musal ci yooyu yëpp mu ne nag faarifi xamal loolu ma la wax te boole leen ci yi ngay wattandiku loo mës a mën ndax nee na bii ci waxtu suba woowule neena te mujj ca lay gëqe al ardu suuf si ci lay baree ay raj-raj looy wërsëg ñu ko cay wutee lirrahmaani ñeel boroom yërmande ju rëy ji te mooy buur bi di mawlaana tabaraka wa taala maam xaaji malik alayhi ridaal malik teg ca geneen ñaan ni naaudu billahi min an niiraani noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu musal nu ba faw ca safara soosu di niiraan mu waxaat ni wan naw mu waxoon nañ ko nee nelaw nelaw yu bari yu rëy ci boppam it nee bokk na ci loolu liy xañe wërsëg waaw wan naw mu mutlaqan nelaw yoo xam ne yu bari la yuy wéy la bari looy nelaw lol ida ma kathura nenas na xamal ni su bare wa nawmu mutlaqan ida ma kathura mustajlibul faqra wa yati darara mune ne xamal ni nelaw yu rëy yu sax day nee su bare nee xamal ni mustajlibul faqra dafay xëcc ak ñàkk daf koy bijj xëcc ak ñàkk teg ci it wa yaati dafay ñoddi di indi ki koy def darara lor ay lor waliyaazu billah nelaw yu bari mën na indil borom ay lor te noonu mu ko ko indile noonu la koy xëccale it ak ñàkk yàlla nañ ci yàlla musal ba faw ci dara jëlante bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañu it bii dañ koy nafaraat tuuti rekk continuer ca fa ñu yemoon incha allahu ta'ala nafaraat gi it ngir ñu bàyyi ci xel ci yii nga xam ne bu ci nekk daf koy jàngale jële ko ci biir njàngale yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko moytuloo xeet wi te mooy jullit yi bokk na it ci xañe wërsëg ak diko wañi wàññi yal ci yàlla musal ba faw mu ni kal bawli wal manami lil uryani wal junubil aakal fil hirmani kal bawli wal manami lil uryani wal junubil aakal fil hirmani mu ne bokk na ba tey ci xañe wërsëg nee na nga dugg ci wanag wi di tuur ndox di saw fekk dara wëru ci ay yére fekk nga def yaram mu neen ni dung di tuur ndox di saw nee na dafay xañe wërsëg nee na bokk na ca it nelaw ci raflewu di tëdd di nelaw temps jamonoy tàngaay am na ñu koy def baxul def yaramu ne dung nonu di nelaw ene na dinay di ko dagg wala billah te moy saw def yaramu neen ak tëdd di nelaw def yaramu neen neena yoy yep bok na ci yi nga xamne da fay xagne wërsëg wal junubil akla neena amé janaba war nga war ko sangu te sango go ba nopi di lek neena lolit da fay xagne moo tax ci jamonoy koor bu ñëwee boo amee janaaba boo sanguwul te ragal xëdd waxtu xëdd paase foofu da ngay jàpp bala ngaa lekk jàpp moomu moo lay aar sa diggante ak loolu waaye mënoo caa julli mënoo caa def leneen danga koy da ngay jàpp rek ngir mën a mos dara pour lekk waaye amee janaaba boo sangoogul di lekkaale ak moom nee na bokk na ci xañe wërsëg loolu moo ko way aw kal bawli wal manaami lil uryaani wal junubil akla fil xirmaani fil xirmaani nee na bokk nañu yii ma wax ba tey ci yi nga xam ni dañuy xañi wërsëg ku nekk euh, nañu ci bàyyi xel ci loolu le nekk nañu ci ñaar yooyu le bu ci nekk di ay jëf yoo xam ni nee na dina ñuy xañ ab jaam wërsëg wala yaazu billah waxoon na it ni bokk na ba tey ci xañe wërsëg euh, di ko xañ ab jaam lekk di sóonu lekk di sóonu wala yee nga toog dëju nga sóonu di lekk noonu ñu tixit ñiy nee na dafay xañe wërsëg nee na bokk na ci xañe wërsëg it liy xañe wërsëg doyadal liy rote ci li ngay lekk di ñam wi te moo di lu tuuru rekk ci suuf lu ca wadd doo ko foraat ci teggin sax ko tey moytu dara lu tuuru te lu rëcc ba tuuru nga for ko lekk ko nee na bàyyi ko fa noonu mu mu tuuroo wesaaroo wet gu ne dafay xañe wërsëg fàttaliwaale it li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni kuy lekk am yuy rote ca ñam wa di daanu ci suuf nga leen di for di leen lekkaat ku koy def sa doom du dof seetal loolu sa doom du dof seetal loolu bokk na it ci la ka maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu waxoon ca ka doon ñaanlu doom nax dafa am soxna taa am doom loolu ñuy wax yara dal ko mu koy ñaan lu ci sëñ Babacar mu ne ko dara gënu caa gaaw nag lekk ngay lekk muy wadd ci suuf nga di ko foraat di ko seexaat di ko lekk lu gaaw ci yara dal la waxoon nañu it xollitiy soble ak xollitiy laaj nga jël leen di leen sànni ci safara comme ni ñu def cuuraay nga jël xolliti soble ak xolliti laaj di leen sànni ci safara si nee na lu nu mel day wala ci furno nee na loolu it ba tey dafay xañe wërsëg te dafay xëcc ak ñàkk ci jaam bi wala yaasu billah waxoon nañu it ngay euh, bale sa néeg wala loo doon def mu taq noonu au lieu nga jël bale bale ko ko nga jël morso rek taxañ ko di ko ko di ko ko bale morso bobu nga taxagn diko ko balé bale bok na na ci li xañe wërsëg da ngay jël bale da ngay jël bale nga bale koko néna bok na ci yit bayyi ci sa euh ay mbalit nga bayyi ko ci sa bir nek néna na na ci liy am foo ko dajale bokk ko foofa mu fanaan fa rek ba euh, nga xëy walla ba mu neex la nga jël ko tuuri nee na loolu it bokk na ci li nga xam ni dafay xañe wërsëg nee na bokk na ci liy xañe wërsëg it bale guddi bale guddi nga jël nga xaar bu guddi nee na ngay bale nee na loolu it nañ ko moytu bok na ci li xagne wërsëg kuy bale da ngay xaar suba tel ca bo julé sa fajar bo nopi nak dégg nga sogo bale te gaaw génne mbalit ma da yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ni ki xey suba tel bale negum bale ëttam ba ci buntu kërëm néna mu bale ba jup buntu këru morom néna lolu ku kay def nee na candidat bu taxaw a ngoog pour aljanna sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu it ni euh, ànd ak mag ku mag walla nga fekk mag ngay dox ca kanamam mbaa nga ànd ak sa sëriñ di dox ca kanamam ak toog ci buntu néeg buntu néeg bu ñuy jaar di dugg ci néeg bi nga ñoo toog ca bunt ba mu ne yooyu yépp it faqrun xasal la ñàkk gu am la ba noppi sax faf moom kon mag dañ koy ormaal bul fekk mag ngay dox ci kanamam lu dul ni danga koy dimbali xëj ne pour mu mën a euh, yombal ak demam nee na yooyu ak toog ci buntu néeg mu ne loolu moom ak ñàkk gu am la ba noppi sax faf mu ne ba tey it bokk na ci liy waral ñàkk di woo sa wéjur sa papa wala sa yaay di leen woo di leen sàllalu di jaar ci seen tur te waxoo papa waxoo yaay loolu tamit baaxul dafay waral ak ñàkk yàlla ci yàlla subhaanahu wa taala musal ba faw te tamit waxuma la sax ak ñàkk yem ca waaye béppuk mbonit war na mën na koo waral yal na nu ci yàlla subhaanahu wa taala musal ba faw nee na ak it boo lekkee ba noppi loolu jamono toll na foo xam ne ku ne mën nga caa mucc ndax bant cure yi ñuy yett ba mu setti ko def ci boîte di jaay yooyu la ñuy waaye lekk ba noppi rek for benn bant ci suuf di sakkaratu walla damm benn bant bala di sakkaratu nee na yooyu yépp bokk na ci li nga xam ni dafay bijj ak ñàkk da koy xëcc wala yaasu billah nee na lekk ba noppi it au lieu nga raxasoo ak ndox nga jël sa loxo rek bomb noonu ci suuf si jublu ci ne da ko bëgg a setal nee na loolu du yam sax ci bijj ak ñak di waral waye lorange ngi ci nan ko wattu nee na it nga fekk ben batan mana ci buntu neeg bi nga wëru ci mune daayi dinay wo lolou danay wo faqra ak ñak duna mayni ni ci lu nak fende li ma wax deug gor peng la nee na loolu tamit jar na wattu nee na fekkit barab boo xam ne barab boo bu bu laabul la barab boo xam ne laabul waxuma sunu salle de yi nga xam ne ndox mi dafay dem te dafay set yooyu bokk ci mais lu mel ni wanag walla barab boo xam ni laabul setul nga fay jàppe nga fay jàppe nee na loolu it xamal ni dafay xëcc ak ñak ci yow boy japp da ngay set barab bu set bu lap nga jappé fa sunu salle de bain mën na japp nak dañ koy défar ba mu set mën nga fa japp waye fekk wanak bo xam ne setul wala barab bo xam ne setul nga jappé fa nee na loolu dana xëcc ak ñak nee na nañu it ni bok na ci li xëcc ak ñak diko waral ci nit sa mbubb xotteeku au lieu nga summi ko di ko ñaw nga di ko ñaw ci sa kaw nga di ko ñaw ci sa kaw nee na loolu it dafay xëcc ak ñàkk te daf koy waral nee na it bokk na ca sa néeg nga bàyyi néegu jargoñ yi nekk ca te dindi ko nettuwaayee woo ko dindi ko bàyyi ko fa nee na dina xëcc ak ñàkk walla yaazu billah dana xëcc ak ñàkk ci jaam bi sàgganee noonu da ngay ànd ak farlu di nettoyer fu lënd nekk nga nettoyer ba mu set yooyu dafay xëcc wërsëg waaye safaan bi bàyyi ko fa noonu rekk fu ne fënd ba ne fa ak yutilim nee na dafay xëcc ak ñàkk nañ ko wattu nee na ak it euh, jàpp ba noppi wala nga sëlm ba noppi wala nga raxasu ba noppi yu mel noonu di fompo ci ci sa mbubb di fompo sa mbubb wala nga jël sa sous-vêtement wala sa mbubb daal nga fompoo ko di ko fendalee sa kanam nee na loolu it dina waral ak ñàkk yal nañu yàlla musal ba faw da ngay jël serviette bu set wala beneen morso boo xam ni tabaarakallaahu bu set bu sell la nga fendalee ko sa njàpp wala sa kanam di fa nga doon sëlmoo nee yooyu yëpp du yem sax nee na ci xëcc ak ñàkk waaye faf dafay toroxal ab jaam wala yaasu billah nee yooyu yu mat a wottandiku la te yu mat a bàyyi la nee na it bu la yàlla xiiree ci dem jàkk ja nanga nga am yi tey bokk ca ñiy jëkk dugg waaye mujj dugg ca jàkk ja ba noppi gaaw a génn dem nee na loolu it bokk na ci yi nga xam ni dafay xañe wërsëg bokk na ci xañe wërsëg mujj dugg ca jàkk ja ñu sëlma rek nga jóg génn jëkk mujj dugg jëkk génn ci jàkk ji dafay xañe wërsëg nee na loolu it jar na ñu xam ko xàmmee ko nee na naka noonu ba tey marché ba jëkk ca marché ba gis nga fii ni mu wuuteeg bu jàkka ja jàkka ja dañoo bëgg nga jëkk fa waaye mujj fa baaxul mujj dugg baax na sax pour julli waaye nga wattoo mujj dugg ba noppi jëkk a génn dafay xañe wërsëg marché ba it nga wattoo faa jëkk a dem nga toog jëkk tàbbi ca marché ba wattoo faa mujje it ca marché ba nee na jëkk ca marché ba ba noppi mujje fa nee na ku koy dëkke di ko def it dinay xañe wërsëg te dinay xëcc ak ñàkk waxoon nañu it euh, yendoo maanaam ñi nga xam ne dañuy yalwaan yañ leen di sarax suba ba ngoon ñu yalwaan ñu leen di sarax ñii suukar ñii bu suukar sa bare walla ceeb ba bari yu mel noonu nga jëndaat ko ca ñoom di ko lekk nee na dafay xëcc ak ñàkk ci yow te dafay xañe wërsëg bàyyi leen ak seen yalwaan waaye yalwaan ba noppi dajale seen suukar ñëw jaay la ko nga jënd ko ca ñoom lekk ko dafay xañe wërsëg te dafay xëcc ak ñàkk te nee na kat euh, euh, fiihi saxaaru nee nekk na ci loolu it ak tuutal ak xeebeel ak xeebeel te nee na euh, ñu wattu loolu ñu wattu loolu bokk na ci yi nga xam ni dafay xëcc ak ñàkk te toroxte wala yaasu billah xaj na ca it neena na bokk na ci it euh, di rëbb say doom di leen muulu sa doom nga di ko rëbb di ko muulu su bokkul ma la yàlla na nga tes sa doom nga di ko wax loolu dileen ñaan yàlla dafay xëcc ak ñàkk te dafay xañe wërsëg ndax yàlla lay jéppi wala yaasu billah sa doom kenn du ko jéppi kenn du ko mbóol maa ngi fàttaliku ko bés sëñ Cheikh recevoir nu ndeysaan ak sëñ Mouhamadul Moustapha mii ca Tiwaawan doomam ba ñu àndee ba yeggandoo ci néegu yaa sufi radiallahu taala anhu nuyoon teeg moom ñu ngi fàttaliku keroog sëñ Cheikh a nga naan yàllaa ngi dogal commencé ak sama doom rek sopp naa la mosuma jéppi ndaw te du ma jéppi ndaw mukk ñu ngi fàttaliku loolu mu doon ko wax moo tax am say doom di leen rëbbëg di leen muulu dafay bokk ci yi nga xam ne dafay xañe wërsëg te dafay xëccit ak ñàkk ci ki koy def wala yaazu billah maam xaaji malik daal di koy termine ñaan nag ni yaa rabbana yow sunu boroom ihdina yàlla na nu Euh, wommatal sa bopp jubal nu ilal rachaad yi jëmee ñu ca njub ga amin radiallahu taala anhu nii na dinay waral tamit ci li nga xam ni dafay xëcc ak ñàkk waral ci yow yàlla subhaanahu wa taala seetaan la ak sa ñàkk yàlla nañ ci musal nee na wattandiku lii may bëgg a wax si ndab yi ñuy lekke di ci yàkk di ci añ di kaas yi ñuy ndékkee di ndab yi ñuy yàkk di ci reer nee na bul ko bàyyi noonu ci biti mu fanaan te te raxasoo ko muuroo ko bàyyi ko noonu ku koy def nee na yàlla dana la seetaan ak sag ñàkk wala yaasu billah te tamit daf koy waral di xëcc ak ñàkk di xañe wërsëg xëcc ak ñàkk di xañe wërsëg moo tax mu ni wa yurisul faqra dinay waralit ba tey ak ñàkk maal xuzlaani ànd ak seetaan gu la yàlla subhaanahu wa di seetaan ak sa sa ñàkk adamu taxmiiri ñàkk muur alal awaani nee na ci ndab yi di defukaayu lekk yi bu dara desulee lu dul tëdd jot ndap yep nañu len raxas ba mu set ñu depp len mur len bu fekente ni bëgg nga ak sa wërseuk wërseuk dikkel la yalla subhanahu wa taala di ko defal neena del defé ni bo bala nga tëdd ndap yeen doon lek yep raxasal ba mu set fompo ba mu fendi nga nga baña taaj ben nga depp lepp depp lepp ba nopi mur len lolou ku bëgg sa wërsëg di dolleeku di sax noonu nga koy defee waaye nee ku sàggan ko xam ni dafay bàyyi ndab ya ñu taq fanaan ci bitim noonu ba noppi taaje ku koy def dina xëcc ak ñàkk te yàlla dana la seetaan ak sag ñàkk wala yaasu billah yal nañ ci yàlla subhaanahu wa musal ba faw di nga di nga ciy muccit ci yenn jàngooro yi ndax la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni at mu ne nee na am na ci guddi goo xam ni ci la balaa yi di wàcce te lu mu fekk muurunu ko te muy ndab yi nga xam ne moom la ñuy lekkee dana ca tàbbi su ko defee nag bu ñu xëyee nee na ku ca lekk rek nee na balaa booba mën na doon di sabab ci yow waliyaasu billah sëg wéradi ba ba nga wuyu sa borom yaa nañ ci yàlla musal ba faw ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee it ak fekk sondeel wala lampe pétrole nga di ko faye sa gémmiñ di ëf mu fay kenn du ko def nee na lool tamit dafay bokk ci li nga xam ne dafay xëcc ak ñàkk di wàññi wërsëg nee na ñu wattu ba tey di bindee xalima goo xam ne kenn xarul ca digg ba xalima boo ko yettee ba mu jekk bala nga caa binde da jël lancet bi teg ko ca bopp catit la xar ko noonu tuuti soog caa mën bind nee na xalima gu ñu xarul nee na bindee ko tamit dinay xañee wërsëg tey tamit dinay xëcc ak ñàkk naka noonu it boo soloo ba noppi ba kaalawu des ca nee na bul toog kaalawu am toog kaalawu kada taamumu kada taamumu labal labal quudi kada la laal qu laal quudi maam xaaj malik ne na nga naka noonu it solu ba noppi au lieu nga taxaw kaalawu ne na nga toog ba noppi di kaalawu toog boobu di kaalawu dafay bijji ak ñàkk day xañe wërsëg boo dee kaalawu da naan ñokket jóg taxaw kaalawu waaye toog di kaalawu nee na dafay xëcc ak ñàkk te dafay xañe ak wërsëg dafa naa ci jotaay bii weesu euh, ñëwoon nañu ba fii nee na topp ci loolu it ba xam ci li nga xam ni ba euh, dafay xañe wërsëg te di ko wàññi bokk na ca waxoon nañ ko ñu nafaraat ko di peñe woo peñe boo xam ne dafa damm maanaam bëñ yi dafa am yu ca wàññeeku damm wala pe peñe nga di ko peñe woo nee na yooyu tamit dafay xañe wërsëg te dafay xëcc ak ñàkk jëlal peñe boo xam ne dara manqué wu ca nga peñe woo ko nee na bokk na ci it euh, tasarwulul qaa'imi booy sol tubéy au nga toog sol ko ngay taxaw di sol sa tubéy nee na loolu it bokk na ci xëcc ñàkk di waral di ko waral tey tamit dina bokk na ci nga xam ni dafay xañe wërsëg tubéy boo koy sol da ngay toog ni bismillahi dugal sa tànku neejoor jëkk mag ñi sax am na ñu cay boole ci biir loolu booy sol tubéy toog ànd ak teggi ne ca war ni bismillahi nga dugal sa tànku nijoor ni ijaaka naabudu dugal sa tànku càmmoñ ni wa ijaaka nastainu jóg taxaw nag takk geño ga wala nga butene ko booy butene wala nga takk sa ceinture nga defee ko salaatu ala nabi nga julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo dee jigéen di woddu it da ngay taxaw foofu doo toog di wodd mais boo dee jigéen di woddu da ngay taxaw ni bismillahi jël sër bi teg côté càmmoñ bi nga jëkk ko lem ci sa kaw ni ijaaka naabudu côté nijoor bi lemu ci bu càmmoñ bi nga ni wa iyyaka nasta'inu nga takke ko roofe ko sër bi nag ak salaatu ala nabi yooyu ku koy def saa wodd wala saa sol tubéy nga defe ko nii inchaa allahu taala lu feebar metti metti metti ci yow du àgg ak yow ci lottal la ba doo mën a sol sa tubéy doo mën a wodd sa bopp lu febar metti metti dana ag ak yow ci woyof ham xamni di nga mën solol sa bop sa tubey di nga mën woddu sa bop loolu jar xam te jar def bo de gor boy sol tubey da ngay tok ni bismillah jël sa tank ni jor dugal ni iyyaka na'budu dugal sa tank chamagn wa iyyaka nastainu xam nga delu nga lepp yalla jog taxaw nak tak geño nga wala bouton ya walla ceinture ga salaatu ala nabi boo dee jigéen noonu da ngay taxaw ànd ak yara teggin jël sër bi teg ni bismillahi jëkka lem ci sa kaw côté càmmoñ bi côté nijoor bi te kaw nga roofe ko walla nga takke ko salaatu ala bi ku koy def saa booy sol tubéy walla saa booy woddu feebar du àgg ak yow ci tartar ba doo mën a solal sa bopp sa tubéy doo mën a wodd sa bopp bu ci ne yaa koy defal sa bopp moo lay wan ni feebar ba dana woyof ba yaay mën a solal sa bopp sa tubéy yaay mën a woddit sa bopp mu ni bàyyee ñaanal say wéjur bañ leen a ñaanal moo xam ñi ngi dund moo xam kenn ci ñoom ñaar kenn ka dem na moo xam ñoom ñaar ñëpp dem nañu ak bu mu ci mën a doon ñaanal wéjur farata la ci doom ju ne yàlla wax na ko ci alquranul karim waxul rabbi igfir li wali walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira yàlla nee na kuy doom dee ma wax ni yàlla yàll na nga ma jéggal jéggal samay wéyjur te yàll na nga leen yërëm nañu ma yiire woon yore woon ma ko yërëmee woon ma ko ba ma nekkee di ndaw loolu kuy am wéyjur moo xam ñi ngi dund war na ci yow donc war a def moo xam kenn ka dem na kenn ki des fi war na dee leen ñaanal ñoom ñëpp foo toll moo xam ñoom ñaan ñëpp dem nañu dee leen ñaanal ba fekki leen bàyyi leen a ñaanal nag nee na dinay xañee wërsëg te dinay xëcc ak ñàkk wala yaasu billah yooyu bokk na ci ñu war a wattandiku yooyu yemu fa sax de yemu fa sax de yemu fa sax de tarku tarku tarku duaal xayri li walidayni bàyyee ñaanal say ñaari jur ñaanal la too walla wala ñaanal mu ne bokk na ci li nga xam ne dafay bijj ak ñàkk dafay xëcc ñàkk te dafay xañe wërsëg minal umuur yi nee na bokk na ci mbir yi bañ a ñaanal say jur nag aljaalibaatil xayni day xëcc sax ak dee day waral doo boo waroon gudd fan sax dootoo gudd fan wala yaasu billah ba tax na mën naa waral gaaw faatu yaa nañ ci musal ba faw moo tax ku bëgg gudd fan bëgg am wërsëg deel sax ba faw ci di ñaanal say ñaari waajur nee na bokk na ci it euh, walkasalu walkasalu taf walkasalu tafriiru wattawaani walkasalu walkasalu taftiiru ok walkasalu taftiiru wattawaani nee na tayeel tayeel ak doggant di di di def di bàyyi walla nga tayeel walla rekk ci def lu baax ba yàgg nga génn ci rek la bëgg a wax ba yàggaat nga dellu su war ca di ko defee noonu léeg-léeg ngay def ba yàgg nga bàyyi ko nga def ba nga génn ca dootoo ko defati di ko doggantee noonu wattewaay nii nee na ak yeex buuxlun nee na ak nay ba tey nee na dafay xañe wërsëg joxeel joxees la la maam sëñ Haadi Ture way ba muy saawaan di baawaan te nee na ab tab soree nag naari teg tey teg ca jegeek buur yàlla ak nit ña ak jànnaatu ridwaan moom la maam sëñ Haadi way te li wayu waxu yonent bi la way nee foo fekk ku tabe dafay jegeñ aljanna te fof dafay jege ak àjjana ba noppi sori lol safara waye néna fof fekk ku nay wala yaasu billah daf ku jege safara la ya ñun ci yàlla musul ci dara yonent bi ali sadu wa salam wa israafun néna yàqit batay da fay xagne wërsëg yàq tax yàq baxul lu ne rek xamal nokoy samé xamal nokoy aré xamal noy dépenser xamal noy def xamal boy def sa alal ci dara it xamal fa koy def fan la ak nang koy defee nan la mu ne yooyu yépp nee na jar na moytu ci koo xam ni bëgg nga am wërsëg te bëgg nga sorek ñàkk ba faw maam Maodo way nag radiallahu taala anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wal aali kama yardaahu istan استنزلوا استنزلوا رزقكم بالصدق صلى الله عليه وسلم فوي حديث بي قال رسول الله صلى الله عليه والآل كما يرضاه استنزلوا رزقكم بالصدق وحزتم min al ilahi xayra nafaqati xayra xayra nafaqa <laughs> istanzilu rizqakumu bisadaqa xustum min allahi xayra nafaqa mu ne su ko defee na ngeen sàkku xadis bu yent bi wax la way noonu na ngeen sàkku lu leen di wàcceel seeni wërsëg muy tukkee ci yàlla di ñëw ci ñun na ngeen koy sàkkoo ci di saraxe ndax sarax nee na dinay dinay dinay wàcce wërsëg di ko yombal su ko defee nee na ngeen daldi làqee fa yàlla nag subhaanahu wa taala xusutum min allahi ngeen làqee fa yàlla te mooy ngeen amee ca moom nag lu ngeen fay amee ca yàlla subhaanahu wa taala xayran nafaqa ngën ji joxe nga am ko ca yàlla te mooy yool boo xam ni dafa lay barkeelal sa wërsëg te daf koy yokk mu ni innal bukuura maam xaaji malik nee na ba tey nee na teel a day jóg teel a xëy yazidu nee na dinay dollib jaam anuman ay xéewal kon subhaana faalin lima yuridu askay radiallahu taala anhu inna al bukura inna al bukura anuman inna albukuura anuman yaziidu subhaana faalin lima yuridu innal bukuura naka ñemeñ teel a xëy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ca xadis ba buurika buurika li ummati fii bukuuriha sama xeet bi nga xam ne ñooy teel a xëy yal na yàlla barkeel leen motax muni inal bukura naka tel a yazidu dinay dolib jam an uman ay xéewal ay xéewal waxul xéewal ay xéewal la wax kon subhaana fa'al li ma yuridu tudd naa selluk bi nga xamni lu ko neex lay defé na ko neexé subhanahu wa taala nee rafetal sa loxo yi ci looy bind nga di ci rafetal sa loxo nga di ci bañ a bind noonu rek mais ngay rafetal sa loxo ci mbind mi nee na ngay rafetal sa loxo ci liggéey bind wa inna wa inna al xatti min mafatixi rizq la ci la bokk rafetal sa loxo ci looy bind nee na bokk na ci liy tijjil jaam buntu wërsëg مام حاج مالك تيغات تيني رضي الله تعالى عنه كوندي ا آه ا آه دا فاي تيجي الجام ورسك مو نكون سبحان الله سبحان اه معنا وان حسن الخط من مفاتيح الرزق سبحان الاله الفاتح nee na kon tudd naa selluk buur bi nga xam ni mooy tijjil jaamam ca na mu ko soobe bunt bu ko soob ay wërsëgam di fa jaar di ñëw mu ni leeral sa kanam it wa bastu wajhin wa bastu wajhin hakada tayibul kalaam wa bastu wajihin hakada tiibul kalaam nee na leeral sa kanamit yaatal ko teeyal ko ba ku la gis ñeme la nee na ak teeyal say wax yiweel ko di leen nooyal ba doo ca loro kenn ciy kàddu mu ne yii yépp de yaziidu fil xewwi wa rizqi wassalaam danay dolli ak wattu te mooy càmmuk sunu boroom dana koy def ci yow danay def càmmuk sunu boroom ci yow jaam bi dinay doon sababu dolli ku ku wërsëg ci yow mi mel noonu di yow jaam bi dinay waralit ci yow jaam bi ngay ànd ak jàmm di ko am muy dëppook xadis ba wa an talqa axaaka la yonent bi wax wa wajhuka ilayhi munbasitun kon leeral sa kanam yaatal ko ba ku la gis ñeme la ak teeyal say wax di leen nooyal di ko defe ci teggin dooloro kenn ciy kàddu mu ne yiide de ku ni mel nee na dana dolli ci moom càmmuk sunu boroom ci moom dana dool dana doonit ci moom sabab buy tax ci moom wërsëgam di dolleeku rekk di barkeel te dinay waralit ci jaam bi foo toll di ànd ak jàmm di ko am mu nekkan zulfina nee na bale ëtt bi it di bale sa ëtt ba muy set maanaa di bale sa néeg sa perong sa ëtt ba mu set xaslul ina nee na raxas say ndab ba mu set fu mu taqe rek boo ca paree nga raxas ko ci saa si ba mu set tarku zina nee na booleeg nag am kàttanu bàyyi njaaloo ndéem ku ko doon def nga wala yaazu billah nee na yi yëpp minal yi nee na bokk nañu ci mbir yi nga xam ni aljaali baati way xëcc nañu di ñoddi lil xina jëmee la cim koom allo salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Moussa Gueye Hadj Mansour la Mansour Deme ah dem waaye ñu ngi lay ziar dem. da nga def sëñ bi kii na ngeen def. ñu ngi sant yàlla dem alhamdulilah. Eh, alhamdulilah eh, moo tax de bugguma di luppe. <laughs> xanaa mu nekk rek waajib ci lu mel ni li ñuy ci jëlee woon dem ca Daakaaba. wallaay wallaay wallaay ah, ndeysaan. waaw ndax luppe luppe njàngalum université kat dafa neexul di lu du du du lu yomb. ndeysaan te deewul li li nga xam mm-hmm. ne bépp bépp mbir boo xam ne jóg nga ci ba jàngale ci ba mm-hmm. tabaarakallaahu lépp lu ci waay mën a am njëriñ ci luy mm-hmm. luy dolli ko fii ak fëli ñu jëm yëpp def ko ci daal di am ba tabaarakallaahu njàngal mi mat na matalati na bi jaahi nabi sal ñu ñaan yàlla daal tabaarakallaahu yàlla yàlla fay la amiin yaa rabbal alamin yàlla na yàlla fay la yàlla na na yàlla yokk la ci zaahir ak ci baatin bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla lii nga jàngalee ni tey ci mbirum am ak mbirum ñàkk ak mbirum wërsëg ak di toppatoo di ñaanal say waajur bu ñu mhm. dundee moom nga toppatoo lu raw loolu waaye bu ñu fàttoo nga continuer di leen ñaanal mhm. ah fa tabaarakallahu loolu day la ñu jàngaloon loolu la ñu xamoon tam boobu ba yàgg te ñu ngi ci mooy ba ila yawmi diin daanaka feddalil nuñu tey ñii yeneen yi nga wax yépp tamit amul lenn lenn lenn loo xam ni am nañ ci limu laami wala leneen dafa leer naññ naññ naññ naññ naññ alhamdulilah yal nañ nañ nañ nañ nañ dégg nañ sant nañ gërëm nañ ziyaara naa bépp auditeur bi nga xam ne bii fa tabaarakallah mu ngi déglu Safina te di déglu sa émission yi mu ngi émission yoo xam ne njëriñu kese la njëriñu kese la képp ku déglu day daa nga njëriñu insha allahu taala ah, jërëjëf dem naa waa daanaa rek moo fi nekk incha allahu taala amina waa daana jërëjëf dem maa ngi nuyu sama mbokk male ci Tiwaawoon nag duudloo xaaji duudloo wallaay wallaay dem mi nekk bi nga xam ne jotuma ko gis waaye fa taarikàlla maa ngi dégg ci ay mbiram ñëpp ñu déggee eh, imam Moussa daal di ci déggee émission bi taarikàlla dégg naa ci ñoom sant naa leen gërëm naa leen ziyaara naa leen ah jërëjëf dem ñu ngi lay delloo wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf xaaji Mansour dem barakallah daara ngi ñuy sabbal bég leen dëgg reenam la ca des mbambulaan la cay yërmandeem jëf dafa jiituy meram fi nun nanu sellal te di màggal ànd ak toroxlu di jaamu jaama ngay jaamu jaama ngay way boroomam jàmm ngi jàmm jaa ngi ni yàlla buur la fa la mbék yam amal na mbaax teg ca baaxe mënuñoo miim xéewal yi kenn du ko weddi nanu leen sant yàlla buur bi allo allo allo waa ah, ñëwul de mhm. allo ñëwul de santale leen ma jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam buura ngi santale leen ko santale ma jaama ngi jaamu jaama ngay way boroomam waaxidun mooy qahaar kawel na meloom ya dellu naa rotu sujjoodal yàlla salaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way boroom kon buur ko sant ma jaama jaamu jaama ngay way boroomam waahidun qahaar kawel na meloom ya dellu naa rotu sujjoodal yàlla salaamu ngi jaamu jaama ngay way boroomam jaama ngi jaamu jaama ngay way salaam wa Doudou Seck Liberté 4. Hadji Doudou Seck baraka. waaw de waay. jërëjëf Seck. ñu ngi delloo ziar. ñu ngi lay delloo nuyoog ziar Seck. baarakallah affaire bi am na maanaam am na maanaam. alhamdulilah Seck. alhamdulilah xam-xam dëgg moo gën tey. alhamdulilah Seck jërëjëf na ko Seck baax a baax a baax. allahumma amiin Seck. Ah, sëriñ dem bu bu génn léegi mu ngi. xaaj Mansour wallaay mu ngi lay dellu mu ngi lay nuyoo ak dina ziar amiin amiin. amiin Seck jaare sama turandoo ba ca teewoon ñu lay delloo ziar yàlla boole nangul fa tabaaraka allahu axsanul ñu ngi gërëm bu baax ñi nga xam ni ñoo woote ñëpp. di leen euh, delloo tamit nuyoog ziyaar ak yëpp ak ñi bëggoon a dugg yépp te jotuñoo dugg di tàggoo rekk tàggoo bu dul tàggoo incha allahu taala ba dellu waat ak jàmm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam na yàlla subhaanahu wa taala nangul te yàlla na yàlla subhaanahu wa taala xoole nu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla na yàlla subhaanahu wa taala bañ a càmbar suñuy mbir jël yi ñu baax leeg naka su dul noonu yeeg dajaleel nu lépp rek dugalal nu ko ci mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoole ñu yonent bi jàppee nu yonent bi may ñu ci mbaaxam ñu mujj ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir wér ak wérle mucc ak muccule dund ak dundule bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala